ayca mbokk yi kon yaakaar naa ne dañuy wéyal waxtaan bi ñu dalal koo xamante ni nag xam ngeen ko si làmb muy Alioune Guèye léegi borom mbuur wala borom jàmm gën maa lay ziar baax la bëgg. <coughs> waaw Modou maa lay ziar bu baax di ziar internet yëpp di ziar euh, ki ñu dalal tey muy El Hadj Jax di ko nuyu di ko sant di ko gërëm bu baax a baax parce bokk naa si ñu ko jëkk a xam ci làmb mm, ba mu ñëwee aussi mu bay waaram tey bu moom bëre simple mooy numéro <laughs> c'est le roi des c'est le roi des te moom bëre simple moo ko gënal donc bu demee ba ba tey dugg ci bëre dóor bi mm, bëgg dimbale xale yi moom moo tax ndax bu dee moom rek moom bu ko neexoon tey toog fële croiser les bras donc ñu koy sant ci loolu parce que képp ku nga xam da nga ñëw rek di investir ci xale yi vraiment man jàpp naa ni yaa ngi yaa ngi yaa ngi bay sawaar donc ñu ngi ko ci sant di ko ñaanal mu yokk ba yëg ko bu baax a baax a baax voilà. yaa ngi as ngeen a Euh, bàyyiwuma ci xel na xam man man bu doy waar laa parce que xamul tax man mbër mu aas yore ak mbër mu mataar yore wala keneen yore yi ñëpp laa yemale parce que dama jàpp ne ñun manager dafa am taxawaay bu ñu war a taxawee waruñu wax wax bu nga xam ne violence lay indi ñu wax wax bi nga xam ne day déborder wala dara dañuy jaboote ñëpp rek waaw parce que ban tànk boobu laay doxee tey bu ma toogal noonu nag Ardo da defar moom mooy sama mbër bu ma toogee ak Liss même chose man comportement boobu laa bëgg képp kuy manager nga koy def contrairement ak li may gis yenn dérive yi may gis des fois manager bu génn xas benn mbër te du moom moom daal mbër ak mbër la donc manager dafa war am benn dimension quoi voilà. lan lan moo la dugal ci Ardo. ah mais ñu nekk ay xale ñoom ñaar Ardo prouvé temps yi passé mu ñëwaat confirmé waat ah, war a bëre ak Liss ñoom ñaar mu nekk combat jànq. ne combat bi nga xam ni as bi xam na ci dara lu mat cinq promoteur topp nañ ma ci cinq promoteur topp nañ ma ci mais fekk boobu as moom jiitu woon na leen ba pare ma mm. wax ko ne ko sama sama kàddu benn la jox naa la sama kàddu ba pare jeex na jeex na mm. ba tey ba tey jii may wax ak yow barke alxuraan promoteur wax na ma ko kaay ma waaw tey tey tey tey mm. encore pour di la wax encore même combat bi loolu moo lay wan ni kay bi yàlla moom moo def mu ñor war a nekk donc bu demee ba ay quatre promoteur cinq promoteur di xëccoo benn combat donc promoteur bi ko teggi teggi na aas. Mm. parce que tey nga tiire mbër mu mel nag euh, Liss Ndiago mu jóge mm-hmm. ci suspension. Mm-hmm. ñu nome ko fa ambassadeur non violence tegal ko ci. Mm-hmm. moom tey taxawaay bu mu taxaw jàmm gën. moom ak xale jàmm gën yëpp ñu nekk fa. donc retouram mu tombe ak journée Jax. kooku man yaakaar naa ne quatorze heures. non mais 14 <laughs> heures ragal naa dinañ tëj stade bi parce que duñ fa xaj si kattanu yàlla. Mm-hmm. waaw. Mm-hmm. tey tey adversaire boo ma doon wax ay qualité lan lay doon parce que tamit dugg na jàmm gën même boo ko xamul si làmb te xam nga booy yëpp sax ay qualité am par rapport ak sa qualité mbër. non mais xam naa ko wax ñoom ñaar làmb la parce que ñaari ndaanaan ñooy bëre mu neex tey làmb ji nga xam ne leer na la diw mooy daan du neex tey ñaar ñi nga boole nii mënoo toog fenn nga ni diw mooy daan mm-hmm. donc ce qui veut dire que ñi nga boole ñooñu nga war a boole combat jànq la. donc euh, ma leen di ñaax ñoom ñaar li ma bëgg daal mooy euh, ñi ñuy fay cent million ëpp ñu leen mbooloo. ëpp ñu leen personnalité ëpp ñu leen dara. dàq ñu leen bëre ñoom bu ñu bëree mu neex bu ñu bàkkoo mu neex. Mm. signature de contrat sax bu ñuy ñëw tey dañuy làqatu pour mën a ñëw sinon xale yi dañ leen di topp. Mm. donc popularité boobu yëpp ñu am. Mm. ñoom nañ ko prouver nuñ koy prouver mooy si yar ak teggin bu ñuy ñëw stade ku si nekk na nga gëm ni man maa war a feesal stade bi. parce que am na yenn échéance yu ñëwaat mbër dina daanu ba pare sax kacham di gën a yéeg wala mbër daanu ba pare sax kacham nekk fu mu nekkoon lu koy may moom mooy tey mu góor góorgóorlu génne public bu nga xam ni bu ñëwee ñëpp ni kii mbër mi ñëw na loolu si la bokk donc ñoom ñaar ñëpp loolu laa leen di ñaax te sama mbër sax du boo ko ñaax lool parce que xam naa li may fekk xam naa la lafa nekk actuellement retour am déjà niñ koy préparé jàmm gën loolu loolu loolu dina leen ëlëm nee naa la 14 heures ragal naa dinañ tëj làmb ci. waaw incha allah suñu côté moom 14h incha allah dinañ ko tëj. jaajëf Guèye. waaw xam naa xanaa di woo rek aussi waa jàmm gën di woo aussi ñi fa nekk ñëpp. di leen wax yéen a doon laaj retour bi. Euh, moom mii tey jour biñ nee wàccee nañ ko. su ma bëggoon mu bëre dina bëre ci saison bii. donc dina jël combat retour bi ma bëgg mu def ko. dafa am retour ba nga xam ne. bis bu ñëwee ñëpp dinañ xam ne. non xale jàmm gën bi dëkk na. te phénomène la yàlla am na lu mu ko may ñu koy ñaanal yàlla mu ñëw yàlla may kon ndam lu sedd guy ñu dem jàmm gën fete ko fa eh, promoteur bi tëggaat ñu beneen ko aussi. jërëjëf voilà jërëjëf. ah Cissé ménagère Ardo. booy gën a lëj nag ci làmb ji moom xam naa ne bokk nga ci ñi ko yar maa lay siyaar baax di la bëgg. di la delloo siyaar bu wér. di nuyu ne monde internet bi yëpp monde de la nuyu président Jackson bi nga xamante ne si tey moo ñu fi woo. di nuyu sama doyen sama xalifa Alioune Gueye di nuyu sama jarbaat. bu baax a baax a baax Liss Ndiago. di remercier CNG di leen gërëm ci aji bi ñu ko aji ndax ñun dox nañ ci wax nañ ci. te nit bu la defalee teraanga da nga koy sant. Euh, di xale bu jàmbaar tamit. keroog tamit Baba Jaxal bi ñu bi ma biraa waxaay biraa pour ñu dem defari chaise yi. Liss Ndiago laa ko njëkk wax mu woo ko te lii fa jiitu tamit. kon ñu nekk booy bokk ndey bokk bàyyi fu ñu ma romb jox ma cër xam nga loolu moo tax maa ngi leen ciy sant di leen gërëm daal. nga dugg ci xale boo xamante bi nii yaakaar naa ne yaakaaru làmb la espoiru làmb la bu jógee ful bi muy drainer rek beneen affaire la ku ko xamul sax boo nee kuy bëree ji ñu ne liis nga ne xaaral ma topp ca parce que mbooloo bi yéem na ma lan moo la dugal ci moom. li ma dugal ci moom mooy président dañ ko war a créer événement pour en yeneen promoteurs yi ma déglu. bi mu tegee shortem bi paase dama ko ne bii di ñëw dinañ la wutal combat te ku xam ne Liss Ndiago xam ne Liss Ndiago bëriwul combat événement lay bëre làmbam événement la ñu nangul ko ko suñu borom moo ko jagleel kon dañ ko koy nangul. moo tax ma teeloon ci waxtaan ak sama doyen alin Gueye mu nangul ma loolu moom tamit Ibou Afia sax lañ ko proposé woon mais après nag moom mooy tànn mais ba euh, euh, euh, Ardo defee ay jaloore ndax combat bi doxoon nañ ko daaw sottiwul. Mhm. ma relancé waat ko moom it mu nangu ne Ardo def na jaloore. Mhm. lii si nangu loolu am grandeur bu toll noonu ñu ko si remercier encore de plus mu nangu ko jël. Mhm. muy combat boo xam ne ñëpp nangu nañ ne événement la kon combat bi tamit ma yéene woon ko Jax waxtaanoon ci doon ci liggéey bu yàgg nag ma jàgg ci liggéey ak Alioune nangul ma ko. moo tax ñi doon woote ñëpp après woo nañ ma ne ma lu tax lu tax may leen dama ko joxoon sama kàddu bu yàgg yéene ko ko waxtaan ceeg Aline Gueye mi yor Liss Ndiago mu nangul ma ko kon combat bi loolu moo tax ñu décroché ko Jax. jouru làmb ji lan lañ ci mën a xaar parce que làmb xale la ñoom ñu koy bëre ñëpp kenn ku ci nekk est-ce que sax am na vingt cinq ans lan lañ a xaar neex. yaa ma ko gën a xam yow yaa ma gën a xam jour boobu ñu xaar ku ne Liss Ndiago xam ne Liss Ndiago. am na lu ma fi présidé loolu moom ëpp naa wax. non dinañ ci liggéey ba ba gars yi kontaan dinañ indi lu bees tax parce que du aas dama la ci dugal yow Aline Gueye mu ngi ci bopp bi ndax Aline Gueye lu liis Ndiago nekk da ciy taq rib te moom ak Jax démb la woon tey soog a ñëw moom a njëkk xam Jax lu ñuy dugg dama ko ciy laaj xalaat yow mit xam nga ne lu may def dama la ciy laaj xalaat ñu partagé xool li gën ñu teg liste la ñuy teg copte booy yu ñu am yaakaar ñu am yaakaar ñu copte leen indi leen jéem a monté combat yi ndax jour Liss Ndiago moom événement la ñuy def làmb jooju événement waaw si kàttanu yàlla ku ñëw arène nationale di xam ne liis xewle na di nga xam ne ardo xewle na di nga xam ne président tëgg na làmb tey. macha allah acca woo wool waa parcelle. waa di woo waa parcelle yëpp di leen wax ne leen ba tey rek une fois de plus 1 ba 26 golf jàpp yëpp seen doom xewle na da ngeen ñëw gunge ko bës bu mag la am muy ardo xam nga dooleel ko. Eh, jàpp doguma la lu tax mu daw lu tax mu daw ñëw. ardo tey xam nga moom yaayam Cees la dëkk. léegi tey yaayam daf ko fa woowoon invité ko nag. Hmm. ba mu ñëwee nag mu fekk fa mbooloo mu bari ñu rey xar teraanga bi far affaire yi guddee. loolu moo tax mu ñëw mais billahi wallahi mu ngi ci yoon bi man nag booy dañ ma koo nëbb. Hmm. dañ ma koo nëbb loolu loolu moo ma métti bu ñu ma teeloon wax kon mun nañ ko def suba ndax damay coordonné ak Aline Gueye te su Aline su ma ne tey ma ne ko ah, su ma ne suba ma ne ko waaw mais ñoom munoon nañu wax suba mais waxuñu ma dara ba ma sangu sol ba pare si lañ ne ma mu ngi jógee Thiès di ñëw. loolu moom ma métti te loolu maa ngi ciy jégalu président une fois de plus ndax mbëri tamit il faut ñu xam ne lii contrat lañ signé ñun ñoo ñëw fii wax ak promoteur bi muy suñu nawle mhm. kon bu leneen amee ñun duñu siggi xool ko dañuy am kersa dañuy am gàcce te ñoom warul gàcce gi ñuy teg muy liis muy ardo waruñ teg gàcce wala aas mhm. gàcce ci kanamu promoteur bi ndax suñu nawle la bien am nañ yéene defal ko lu baax mais ñoom it toujours suñu kàddu bi ñu koy joxee seen ginnaaw mhm. ñoom nañu ñu dimbali ko respecté muy ci mbër yëpp waaw. macha allah jërëjëf As jërëjëf asalaam